ay ci yow mi ko doon faral ko garaaw. waaw ah, kon baax na kon baax na waaw Ndeye Marie ñu ngi lay nuyu aussi di la di kontaan dalal suñu plateau comme. wax dëgg kontaan naa si mhm. dal bi ngeen ma dalal. di mhm. kontaan si invitation bi. di leen nuyu yéen ñëpp aussi di leen ziar. waaw bétti dañuy ànd ak waa ñu dem xool quelques vidéos ñu ñëwaat xool euh, farañ fàcce ko si plateau bi waaw. waaw bétti moo ngi noonu. ñoo ngi nu waaw ñoo ngi nuyu Souka aussi bu baax Souka ñu ngi lay nuyu. <laughs> waaw Ndeye Marie côté physique gis nañ physique bi gis nañ championnat du monde bi ak yooyu léegi foofu euh, technique bi ngeen utiliser wala euh, physique bi boo leen koy préparer mental bi nan lay doon. bon voilà ñun bi ñuy préparer euh, coupe du monde bi Paris 2022 hmm. bi dañoo utaloon benn préparateur physique. maa dañu wutal préparateur physique hmm. nga xam ne en amont moom moo ñu préparé ñu physiquement avant ñoo dem ci technique yi. donc pour avoir technique yu baax il faut nga am physique bu taxaw. Mm. donc am nañ chance CNG bi. ñu wutal ñu préparateur physique bi moo xam ne pendant deux ba trois quatre mois ñoo ñu préparé ba à la fin sax. Mm. ñoo ñu préparé physique bi pour mu ñu mën a taxaw si technique bi. ok léegi kon looloo tax je crois que yéen a ngi am ay vingt deux médailles ñaata vingt deux médailles vingt deux médailles neuf or accord léegi en tant que euh, femme gis naa aussi benn image waaw benn image boo xam te ni bon seen chambre yéen a ngi doon def compétition ba lay passé pour jigéen ñi ah, hmm. waaw léegi dañoo gis euh, bee passé semaine bee passé dañoo def benn compétition ak jigéen ñi ci mhm. marché mois de marché bi ma gis ñu defal ko mu ngi def mooy bi ñuy def thank you fii mm-hmm. benn kii buñ la envoyé lettre ak yooyu. Mm-hmm. léegi considération boobu si si club bi. Mm-hmm. ak si euh, CNG bi. nan la lan la demee si jigéen ñi. bon voilà comme li wax rek ñun Velvada bëriwul jigéen. day mm. bu ñu commencé bu ñu defee un an deux ans. après dañuy arrêté. léegi de ce fait nag ñu organiser benn tournoi. loolu daaw ko initier. en 2022 lañ ne léegi dañuy organiser tournoi boo xam ne open table lañ koy tuddee nga xam ne euh, mois de mars nga xam ne mooy mois boo xam ne moom lañ jagle jigéen ñi mm-hmm. ñu def ci euh, tournoi boobu noonu compétition bu jigéen ñi kese la am léegi ji bi xam ne ne ñun Verve daaw jigéen ak góor ñooy compétir mm-hmm. léegi ñu ne nag pourquoi pas ñu créer benn tournoi boo xam ne jigéen ñi kese ñoo si compétir ñu initier ko puisque man ak Taa bokk nañ si grade yi ñu organiser affaire bi sur l'appui du CNG ñu organiser ko ñëpp kontaan nag tournoi bi ça s'est bien passé mu am mm. réussite taxoon nag waa Vodok LPA yi defal ma sargal boobu noonu mais sargal fu ñu jigéen ñëpp la mm. voilà ok Ba Daaw mm-hmm. Viet Daaw euh, mooy kii waa Vietnam ñoom ñoo ko créé waaw xam naa moo tax xanaa ñi koy def euh, la plupart dañuy gàtt <laughs> c'est que man li may wax euh, ci yéen ñi mm-hmm. est que yéen ñi jàng ki ba noppi am kii seeni wujju laa yërëm man. <laughs> non mais c'est tamit. foo ñu def ko seen wujju. non parce que fii Sénégal fii wujju yi. kuy wujju est tey fi mu toll nii pare xam ngeen am nga boroom kër fi mu toll nii. non amagul léegi fi mu toll am na koo xam ne mën na lay labat mais mën na dem ba ci biir te jabar ja bañ parce que li tax mu bañ bu suppose jabar ja bañ waaw xam nga am na. jabar xam nga jabar ji mën na wax ne. du ma nangu muy dugal. koo xamante ni. Mm-hmm. dafa def armation ba am ci ay médailles. <laughs> parce que le fait que nga am ay médailles loolu tamit yeneen contrainte la xam nga euh, bu ñu jógee ci jëkkër ji. Mm-hmm. parce que góor ñu leen di affronter sax léeg-léeg du ñeme du wóor. parce que léeg sa jabar def la dara sax nga war a mën a dóor mais xam nga yéen ñi ku leen dóor musiba am <laughs> nan ngeen nar a dundee loolu ak tamit ndax gars yi nga xamante ni bii. Mm-hmm. génn nañ ci cercle bi. cercle euh, li ngeen jàng. Mhm. est-ce que dinañ leen di ngoro ñu leen xam xam leen leer leen ne kii def na biir ba daaw mu koy ngoro. <laughs> non si si ah si si non moo tax ma ne Sénégal dafa bëri ay préjugés. Hmm. dañuy wax yoo xam ne maîtriser wuñ ko ñu maîtriser soi si ñun la fekk baax. Hmm. ñu yàlla def na ni dañu am maîtrise de soi. waaw dañoo dal am nañ maîtrise de soi coow sax dañ koy daw au contraire dañoo mujjee sax ragal. Hmm. parce xam ne liñ jàng. am na luñ ci am na luñ ci xam de ce fait dañ lan lañ la njëkk wax li nga jàng nekkul pour appliquer ko si nit. Mm-hmm. voilà donc euh, li wax nii rek que ñun soxna yi soxna yu dal lañ. Ah. jigéen yu dal lañ jigéen yu am maîtrise lañ que li ñi li ñu foog si ñun amul. waaw mais c'est que da ngeen a am retard ci benn côté. parce que ah. jamono ji ngeen di jàng. Ah. biir ba daaw mhm. di dem entraînement mhm. waxtu woowu am na xale yoo xamante ni bii ñoom ngéwél gi ñu ngi jàng ay nëbal ak ay cuuraay <laughs> ay kiiw ak affaire yooyu xool am na ñoo xam ni côté boobu la ñuy jàng léegi ñooñu dañ leen di raw fa xam bu ngeen nekkee fii médaille d'argent bu ngeen demee fee bu ngeen def ndaag du ngeen bokk ci ñi yéeg pojom ah, du ñu yéeg pojom mën naa yàlla def na du ngeen yéeg pojom <laughs> comme que ay femmes sénégalaises waaw suñu waajur yi jàngal nañu si mbiru jigéen hmm. jigéen ñi muy nekkee si kër ñi muy mi ngi ci. ah ñu ngi ci de ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi si. non yéen entraînement ngeen. ah déedéet yéen saa yu ngeen xëyee jàngee wàcc yéen nga saal. <laughs> déglu ma rek. su ngeen jàngee wàcc yéen a nga saal. parce que euh, yéen lu ci bari. Mm-hmm. ñenn ñi nga xam ne mi ñoo dëkk ci koñ yi sax dañuy defe ne bon yéen maanaam kiiw góor moo leen di gën a neex quoi yéen a góor ñi yéen a bokk ay gis-gis ak ay kiiw ak yooyu quoi mm-hmm. wala loolu amu ci non loolu mais ma li wax rek empêché wuñ que sax ñun soxna yi nekk ñu nekk ko. amul def yi fi jigéen terewuñ ci ci dara dara dara. man tey ku ma waxul damay def art doo ko doo ko doo ko gis. ay ah, yow man man loolu jaaxal na ma ci yow. parce que man bu ma la xoolee nii. <laughs> bu ma la xoolee nii mais comme wax rek ñun soxna lu soxna mën si kër mën nañ ko. Hmm. mën nañ ci kër yi mën nañ ci bureau yi mën nañ ci vervada bi donc ah, ñun am nañu avantage de plus. amagoo borom kër nag. waaw mm. <laughs> même loolu sax si si si si si liggéey boobu noo leen koy comme li saa wax noo leen mm-hmm. allié liggéey bi. Mm-hmm. ak euh, entraînement yi ak ak ak ak famille bi. weex rek jafe est-ce que. waaw non dina jafe du jafe lépp passion la rek. Mm. ak organisation. nit ki boo amee organisation moom euh, loo bëgg def di nga ko def ak tam appui sa yi ak ñi nga nekkal nit ki boo bëggee dara yow yaay def le tout ba li nga bëgg nii nga matale ko. bu jàng bu ñëwee nga matale sa jàng bu liggéey bu ñëwee nga matale sa liggéey comme ñun am nañ chance boo xam ne ñun suñu entraînement yi guddi la 20 heures 22 heures kon mun nga liggéey ba wàcc nga dem sa entraînement donc euh, empêché wuñ dara daal si suñu suñu vie professionnelle ak suñu vie sociale. waaw avant Omar di doon nga wax tamit ci considération considération bi ma doon wax léegi ci mhm. famille yi mais tamit ci euh, autorité yi mhm. euh, ndax bi ngeen jógee championnat du monde Sadio Sadio ci cas chaque jour bi ngeen jógee championnat du am ngeen euh, lu bari lu ñeen jox ko parce que boo degee jege championnat du monde surtout maa nekk jigéen nekk am vice vice champion du monde. 22 médailles 22 médailles 22 médailles. xoolal ministre des sports sur 10 leen. Euh, sur 10 personnes waaw 10 personnes ñoo ñoo demoon am suñ benn kii bu ñu fa fekk. ñu nekkoon 10 personnes ñu am 22 médailles. donc euh, ñun ngi autorité ba léegi rek ñu ngi leen di euh, tàllal loxo rek waaw moom ñu ngi ñuy faale sax mais tamit appui mu gën a kii rek ñu ngi gën a xaar seen appui rek non faale wuñu voilà ñu leen di compétir ñoom ñoo leen accompagner waaw ñoom ñoo ñu euh, accompagner et tout ñoom ñoo ñu accompagner voilà ñoom ñoo ñu prendre en charge bi ngeen ñëwee bi ñu waaw affaire yi des na ñu ngi daal ñu ngi ñu ngi leen di kii daal gars yi <laughs> booy booy football yi laal nañ 10 millions <laughs> yéen mu ngeen laal xanaa war ngeen a laal lu gàtt gàtt dina ñëw inshallah dina ñëw inshallah ah li nii di li ngeen di déglu daal dinañu incha allah. 2022 <laughs> 2022 ñu ngi ci 23. léegi 2023 ja. yàlla baax na yàlla baax na. <laughs> waaw dégg nañu daal que si am nañu si revoir dégg nañu incha allah dinañu. léegi yan objectif ngeen fixé wu fi mu toll nii comme dem nga championnat bi ñëw def bi championnat man léegi sa yëpp sa yeneen objectif lan la. sama man sama objectif mooy lan instant yi nii euh, jigéen ñi ma xëcc leen ñu def Vieux Fada man instant yi nii parce que man def naa 17 ans de pratique. te bu mu amee 11 ans ba léegi. waaw dem 11 ans laa ko duggee. Ah, donc man man loolu mooy sama objectif. yaa ngi gën a nag xañ sa bopp. saa <laughs> da leen bëgg lambal. eggaleel eggaleel. 17 ans. voilà ku ci kii 17 ans kii wala ku xàcc yàqu. <laughs> allahu ñun loolu mooy si objectif actuellement parce que man mën naa ne lépp lu ma bëggoon si Vieux Verdun am naa bu mu si dugg mu duggoon ndax dama ko bëggoon. Mm-hmm. mais ñun léegi soxna yi lañ bëgg ñu pratiquer sport. kon avant ngay le plan mondial. di mm-hmm. di le plan national. am nga ci ay euh, yooyu yu bari. yu bari nekk naa plusieurs fois euh, championne du Sénégal. du Sénégal nekk euh, plusieurs fois championne régionale tournoi yi participé naa et tout petite catégorie bi laa commencé. Mm-hmm. dem catégorie senior yi donc man def naa étape yëpp. d'accord voilà donc am naa chance boobu noonu. Mm-hmm. les chances boobu nag nga xam ne am naa ko ba mën a continuer ba gis ci yenn njëriñ yi. dama ko bëgg sama soxna yi so soxna yi ñu am mm. avantage bi ma jàppale leen ci li ma mën mm. li ma mën mooy taxawu leen entraînement bi bokk ak ñoom di organiser genre tournoi ñuy organiser CNG di organiser tournoi ñuy defoon pour que soxna yi di am fitu ñëw di pratiquer sport. xanaa loolu ubbi nga saal quand même. non ubbeeguma saal nag ubbeeguma saal. jot bi loolu aussi day jëm ci en liggéey beeg. noonu jot bi moom xaw mais teewut suñu saal yaa ngi fi man Vodic lay entraîner Pape Djibi ñoo bokkoon fu ñu nekk. Hmm. dañuy tout le temps dañuy ñaax soxna yi à ce même buñ ñu commencé da nga gis ñu commencé def un an wala kii ñu arrêté ñaax leen à ce que ñu continuer parce que ah. njëriñ kese lañ ci gis. Hmm. waa si si côté yëpp nag. sama genre ñu ngi ca foofu. ñëpp ñu ngi fa. ñëpp ñu ngi fa waaw ñu ngi lay xaar man féministe <laughs> ñëwal ñëwal ñu ngi leen di xaar ñëpp fi toog <laughs> dinañ ñëw ci saal ba incha allah. Ah, muraay bi jekk na. Ah, merci beaucoup incha dama foogoon ne jar nga sax. <laughs> Hmm? léegi incha allah. Ah. yàlla baax na ak réeju neex. léegi <laughs> <laughs> eh? may leen saa may ma ko. saa may ma Omar saa may ma Omar Omar ko raté moo ko gën a xam Omar eh? Omar. Eh? Euh, laaj nga ko ci biir mun la jaruma bi muy ah. nuyoo kii laaj na ko mu ne nga jaragul léegi mm. yow nga laajaat ko léegi jarul ama <laughs> léegi euh, tekki euh, ndur na ko am diine waaw waaw waaw ba teg yooyu dañuy jaragul dama xamul lu ko fi téye ba léegi ah waaw ah, parce que kii daaneel bi yàlla tëdd rek toutes les conditions sont yaay dàqe wala toutes les conditions sont réunies bu jotee rek dañ ne loolu moom bu ko yàlla tuddee rek incha allah dina ñëw ba nga doon ñaare ah <laughs> Omar waxagul soxlaam de. incha allah rek yàlla baax doon ndaw yow. doon ndaw émission bi non du ndogu bàyyi ko du ndogu. bàyyi ko daam ku bële bu mais da mais daa am lu ñu seetlu ah korok ki nga ma jël invité ak ñeneen man dama se voi da ngeen di voilé. loolu lan la waaw bëri na ci nag keroog ñu may def suggestion boobu naa ma ñiy def armatial dañuy muuru. mu ne xam naa dafa tase rek. Hmm. waaw dafa même waaw dafa tombé rek même fête foda bi xale jigéen ñi 90 pour cent bi dañuy muuru. peut-être parce ñun. ñu solo si kenn dem influencer ay xaritam. wala non non sax même pas sax parce ñun bu ñu demee entraînement affaire entraînement la ñuy nekk duñu wax si affaire. dafa remarque boobu ci voile bi non def naa ko. Hmm. def naa remarque boobu noonu que jigéen ñi même si fête bi que am nañu dama yéen seen jigéen ñi ma fi gis ñëpp. xaj bi ñëpp dañoo muuru xanaa a neex a jàng wala a nooy. na ci eh, <laughs> bërëbu sikkim tamit. góor ñi xaaral ñu ah. laajte jàng bi dafa gën a nooy wala. par rapport ak kung fu karaté ak yooyu. non non non gënul nooy sax de. Ah. moom se est c' est complet moom. wet hmm. moom macha allah moom. Ah, waaw yombul de. <laughs> Ah. yomb na yombul lépp bi daal bëgg-bëgg la rek. voilà mais moraay moom dañoo def remarque boobu noonu que jigéen dañ koo bëgg rek. ñu def ko voilà. mais jotewul dara ak euh, ah, kii bi ak euh, góor ñeeg seen i sikkam yooyu. non ah. mais loolu est-ce que nekkul ni moo fii téye parce que bu moraay bu ànd ak sport na uh-huh. des fois jigéen bu bu muuroo li ci ëpp. Mm-hmm. respect bi day bari ci moom. mu mm-hmm. teg ci di def sport aussi est-ce que du loolu aussi tamit. non je pense pas je pense pas parce que man bi may muuru man 2015 laa muuru. donc muy muur dama xool que muuraay bi bëgg naa ko ma ma ma ma ma def muuraay bi. Hmm. mais amul benn lien ak sport bi may def. waa hmm. hmm. macha voilà donc euh, bëgg-bëgg la rek nit ki moom da ngay xool loo xam ne bëgg nga ko. nga def ko. parce que am na si ñoo xam ne muur wuñ te wut ñu ngi pratiquer ba léegi donc je pense pas am na lien. léegi boo doon kii ak euh, affaire euh, principe du verbe daawa. boo ñu indiloon benn wala ñaar. voilà man principe bi bokk na si euh, être fidèle à l'idéal du mouvement Firfada être dévoué à sa cause même bu ñu man maa ngi si CNG bi. Mhm. en tant que trésorier adjointe. Mhm. donc ñun Firfada la ñuy liggéeyal. Mhm. pour pour principe boobu noonu loolu lool lay génnee. ñun quelque soit fu ñu mën a nekk ak lu ñu mën a def vet dañ ci nekk. vet dañ ci nekk tout le temps si côté si boor yëpp. bu ñu nekkul si côté administration bi si technique yi ñu ngi ci ñu ngi def bu jàppale Firfada avance dañ ciy nekk. beneen principe bi aussi. mooy euh, euh, atteindre le plus haut niveau de la pour servir l'humanité mm. maanaam nit ki pour nga jëriñ nit foog nga am lu ne si yow ñu fee daf ñuy jàngal loolu nga jëriñ nit nga jëriñ nit voilà mm. donc nit ki pour nga jëriñ ko foog nga am yar am teggin am xam-xam am loo ko jëriñee am jëriñ sa peuple jëriñ jëriñ Sénégal jëriñ àdduna bi yëpp mm. donc feebar ver voilà daf ñuy jàngal loolu yëpp te bokk na si principe yoo xam ne boole nañ ko si léegi euh, am tamit ñu ne la formation de l'homme vrai loolu mooy biir la formation de l'homme vrai voilà léegi devise de l'homme vrai voilà l'homme vrai mën nañ nit boor yëpp la homme vrai bu ñu ko waxee mooy nit ki dëggu bi mu war a dëgg nit ki ni mu war a mel ci jikko ju baax ci jub ci am yar am teggin ak ci liggéey nangu liggéey donc homme li mu ëmb bëri na léegi euh, loolu moom mooy suñu but devise bi c'est être fort pour être utile être fort physiquement moralement et donc euh, nit ki da nga war a am santé pour mën a xëy liggéey nit ki moralement ak mentalement surtout ñun jigéen ñi sax dañoo soxla euh, force morale et mentale parce que Sénégal dañ koy wax rek mais nekk fi jigéen di def sport de combat yombul. voilà di nga di te jànkoonte difficulté yu bëri nag mais foo amee force physique ak moral mental rek. ñu ci avancé mais gisoon ne jigéen ñi aussi jigéen ñi duñ gaaw a xeex duñ gaaw gaaw a ne ndax est que jigéen ñi duñ gaaw a xeex. non non non amul est-ce que euh, maître yaa gën a xam déedéet la parce que parce que jigéen. parce que mën nañoo jigéen ñoo xeex sax mm. bàyyi <laughs> jigéen a xeex. jigéen dañuy gaaw jigéen ak góor quoi am nga. c'est que li jigéen juy def aar moom di xeex gisaguma ko waaye jigéenu xuj mbal yi ci koñ <laughs> <laughs> moo tax na ñu war a def ay marché léegi muuru. grand yu njëkk yi la jàpp léegi muuru a xaaju woon. moom dafa muuru kenn du ko laaj ndax da ngaa woor moom. waaw léegi woor ak ak ak ndax da ngeen di boole ñaar yam. mën na nekk bàyyi ba gi jeex. non non dañuy def ñaar yëpp dañuy def sport bi dañuy def kii parce que ñu léeg sax am temps yoo xam ne mën ngaa entraîner di woor yàqul laa dara. Mm. ñun tamit man li may wax rek suñu suñu heure d' yi guddi la dañu dog ba pare dem entraînement. donc entraînement bu ñu doon def deux heures ah, deux heures. voilà boor ba dog entraîné. voilà mais man su ma dogee dama tëdd rek laay bëgg. booru ah. géej gi. sa <laughs> boobu baaxul bu bonee it mu ci laa yàgg a def. <laughs> Ah. ay pile la de. Ah saa yi nga yàgg def yëpp jig na depuis 1900 condom loolu lay def yi nga yàgg def yëpp jig na la. <laughs> damay woo député. <laughs> mais xaaral ma laaj dama la bëgg a <laughs> dama ko bëgg a laaj tuuti mooy yow administration bi da nga ciy liggéey trésorière nga nan ngeen def pour récolter ay fonds. non ñun euh, suñu kii yi dañoo am euh, euh, ministère dinañu jàppale suñu kii yi. aussi hmm. dañoo am benn plateforme boo xam ne affiliation comme tey boo ñuy def Vervada. day wane ne yow yaa ngi def Velfada. Hmm. foog nga am benn carte boo xam ne mooy wane ne yow yaa ngi def Velfada. Hmm. donc euh, si affiliation yi aussi dinañ si am fond buñ ci def pour mën a organiser suñu événement yi. Hmm. aussi ñun tamit ku nekk de sa côté. di ut ku la jàppale loo xam ne ñu ñu ñu ñu ñu def ko ci donc source de financement yi bëri na. source de financement yi bëri na. mais quand même say projet ah, ah, ah. euh, say projet ubbi saal bokk na ci. comme par exemple ni nga bëggee ni noonu ngeen ko mm-hmm. bëgg pérenniser ak yooyu ubbi salle aussi da ci da ci da ci waaw man dama defoon da nga yor salle pour après ma inscrire mais comme yoroo salle <laughs> non mën nga ñëw bëddug benn la mën nga ñëw bëddug benn la bëddug mooy fan Parcelles Assainies unité 8 ah unité 8 am ngeen fa am nañ fa salle foofu lay entrer salle yi ngeen naan vodou waaw vodok vodok mooy salle si vietnamien ah ok vodok vodok waaw waaw moom mooy signifié salle si vietnamien d'accord ah, <laughs> mais nit ki boo nekk si dara dafa nga xam loolu da nga ci wax foog nga xam parce que ñun bu ñuy compter tamit si vietnam yi lañ koy compter. moo tax saa mais en général sax nuyoo yi. ci ci seen langue lañ koy waxee lañ koy def. waaw parce que seen culture lay doon quoi seen culture lay doon. voilà loolu. loolu tam bokk na sama objectif mais nekkagul kii daal jot bi daal mu ko may incha allah. Ah, rek bëgg naa voilà mais boo doon def euh, lan la Arma lan la la Vierba daaw jox confiance euh, confiance en soi. Mm. esprit de partage wala concurrence yan yan idée. Eh, bo si côté yooyu yan la la yan yan nga si jàngat bu baax a baax yow yi nga xam ne moom nga si moom nga xam ne moom la la Vierba daaw a jox te moom nga moom voilà moom nga adapté. première chose mooy santé bi. côté santé santé côté parce que man dama asthmatique je suis asthmatique. Ah. donc euh, bi ma nekk xale. tout le temps dama am crise d'asthme mënul ma toog deux semaines ma parce que man sama asthme dafa xaw a métti. Hmm. ma comme bi ma commencé Velvoda mën naa toog ay deux ans trois ans ma am donc loolu rek premier avantage la boo xam ne Velvoda may indil na ma ko. Mm. beneen bi mooy confiance en soi bi ak maîtrise de soi bi ma nekk xale dama terrible woon. terrible bi ma commencé def Velvoda si la ma casé. donc pour dire que rek xale yi tamit nga xam ne seen doom dañoo am hyperactivité mm. mën nañ leen dugal ci sport de combat def Velvoda parce que da leen di casé mm. beneen bi tamit confiance en soi bi ak esprit de partage bi ngay am. voilà man Velvoda moo tax ma dem dugg ci affaire volontariat. donc euh, bëri nañ li ñuy lim ñuy apporteel suñ côté liggéey tamit bëri na lim ñu si lim ñu si apporté Velvada daal xam naa ne bu ma ko doon wax <laughs> lépp yëpp. Mm. mënu ma ko jeexal mais yooyu daal mën naa ne. c'est des plusieurs waaw kon looy looy tëjee di leen remercier tey wax ah. moom wax nga ko waaw. di la fin bi. <laughs> bon di leen remercier di remercier si invitation bi di remercier Pape Djibril nga xam ne. ñoo bokkoon saal Voulouk la mm. nekkoon. Mm. waaw mu di ko remercier di leen remercier ñëpp si euh, euh, invitation bi. Mm. di wax ne euh, di ñaax sama mbokk jigéen ñi rek ñu bañ a sédentaire. nañ dem ci sport yaram yi dem yëngal yaram yi. Mm-hmm. te bañ déglu préjugé yi aussi. Mm-hmm. comme voilà. voilà ñun de soxna yëpp soxla nañ comme soxna Sénégal yëpp. bi soxna mën si kër yi mën nañ ko. mën <laughs> ñëpp mën nañ ko ñëpp mën nañ ko. voilà. bu ngeen ko dugalee ci seen saal <laughs> koy ba wax rek mu daan. da ngeen di dugal seen saal xëy suba mu indi ay tana. non non <laughs> ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ di wax rek di wax rek tamit autorité yi rek. di gën a gëstu waaw gën a gëstu rek. kon les verbes pour ñëpp la arts martiaux yi voilà. Mm-hmm. ñu gën a gëstu rek si appui yeeg yooyu yëpp merci beaucoup merci beaucoup waaw béti waaw saa day tax rek ñu bañ a fàtte beneen côté bi mm-hmm. xam ne beneen côté bi beneen côté bi si la bokk beneen côté bi mënoo ci juddu di xàmmee di ci màgg ba pare bëgg ko teg ne saa day sànni xeer rek góorgóorlu baax a baax parce que côté boobu mooy côté bi Ah, ah, waaw borom bi lool la wàcculu leen fi pour ngeen di biir ba daaw sama xarit ba moom demul saal ah, binta demal saal nag bu demoon saal ñaamee am problème te kañ di dem saal waaw di baalu ñëpp ci àq euh, si koor gi di wax aussi fi Omar di tëjee fi Omar tëjee aussi di wax euh, ñi ñuy jàpp ñëpp bu leen mën mënee bàyyi aussi mooy gën parce que dëkk moom jàmm rek moo si am doole ba pare ku nekk am nga sa liberté aussi wax li nga li nga xam ne moo nekk sa xel. def naa waaw si yar ak teggin mooy li ëpp solo voilà mooy d' accord donc nañu delloo si xel yi quoi. d' accord incha am na solo maître ñu ngi lay remercier di remercier sunu gan moom Ndeye Marie Ndour ah. voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax di vice championne Viet va daawul ah, vice championne du monde sa monde gi may fàtte nag war nga ma cee waxal.